maa ngi tudd Omar Faye eh, dëkkal fii ci village bu ñu naan Luxus eh, ci commune bu Morolan eh, man nekk man maay porte parole collectif des agriculteurs de Ndiaye Bopp et de Luxus yàlla def na nag man nekk si wàllu mbay mën naa wax ne jaar naa si fu nekk am na foo xamante ne sax xëj na eh, damay jëli di indi ci dëkk bi waaw loolu daal eh, yàlla def na tamit nekk xëy na dossier yi nga xamante moom lañ commencé 2016 ba léegi ba 2018 lépp eh, ñu ngi nii nga gis nii ñu teg nii benn bu si nekk nag dañ ko jokkalanteeg maanaam kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk si eh, eh, arrondissement bu Pambal surtout le maire ak maanaam sous-préfet boobu ba léegi 2016 ba léegi ñu ngi jokkalante si wàllu suuf si et eh, pour rek ñoom ñu xam ne ñun ñëwuñu pour joxe suñu suuf ñun dañoo ñëw pour liggéey suñu suuf dañoo taxaw si pour liggéey suñu suuf waaw. e xëj na nekk dama ànd ak nit te boobu ba léegi processus bu mu déparé ba léegi man ak moom ñoo si ànd pas à pas amul fenn foo xamante ne moom kii na ko muy sëñ Cheikh mii ma bëggoon nekk e, e, su ko defee léegi fa ñu jaar ba àgg si fii te moom mu xam lépp mu jaar si parce que aussi nit da ngay wax li nga xamante ne moo am moom a gën a set làmmañ kon sëñ Cheikh su ma sañoon tamit nga jël parole bi su ko defee léegi euh, li nga xamante ne euh, euh, jaar-jaar yi nga jaar si maanaam tamit nga leeralal ñii li nga xamante ne moo fi nekk. sama teewaay fii nag mooy ñu leeral askan bi li nga xam ni moo xew ci sunu biir nii dal ci sunu kaw mbirum. suuf la suuf si nag ñun ñoo moom sunu suuf ndax sunuy maam yi lañ ko doonee maam yi doonee ko ci maam yi e, liggéeyuñu dara amuñu dara lu ñuy def lu bàyyi lañu yaakaar ci suuf soosu la ñuy dunde ah dañ ci nekk nag ba ñu xëy rek maire indil ñu projet projet bi e, xamuñu ni mu demee am na ñu fekkee jotaayu ñoo bi am na ñoo xam ne fekkewuñu ko bi mu ñëwee nag loolu nag mu ngi xew 2016 kon xaw naa yàgg bi mu ñëwee nag eh, ñu ni dañuy joxe suuf si dañ leen wax ne suuf si de moom la ñu yaakaar di bay di dunde te bu fekkente ni jël nañu suuf si joxe ko du ñu amati ci lu ñuy téye te am na ñoo xam ne ñu ngi woon ndakaaru bi ndakaaru demee ba metti ñëw nañu fii ñu ni seen suufi maam la ñu yaakaar ñu ngi ci nekk di bay ci te lañu dunde yàlla dogal na maire ñëw mu ni suuf si daal daf koy joxe ndax ñii ñëw bu ñu ñëwee jël suuf si dañuy jël nit ñi liggéey ñu nekk ci waxtaan mu forcé jël suuf si mu ni joxe na ko suuf si nag li mu joxe mën nañu wax ni ëpp na 350 hectares ndax li ñu desee ci suuf yëpp moom joxe na ko te àll boobu am na ñoo xam ne am nañ ci ñaari e, tool am na ñoo am nañ ñetti tool ba ñeenti tool baykat boo xam ne ñeenti tool la am moom lay dunde ñeenti tool yëpp yàlla dogal mu nekk ci benn site nga ñëw jël ko waaw waaw yaa ngi ko bokk say rakk ñii ñu ngi dakaar am na ñoo xam ne ñu ngi fii yaakaaruñu dara loolu la ñu yaakaar munu joxe na ko lépp demoon nañ ci commencement bi sax ñu ne leen ni waa ngeen joxe tuuti ngeen xaaj ko ci digg bi nga xam ni bu fekkente nit ki ñaari toolam yi dem na ci projet bi yeneen ñaari tool yi moom mu nekk ci bu projet bi neexee ah ñu continuer bu neexulee tamit ñu ñu des ak tool yooyu que ñuy wax loolu ak di xalaat euh, waxtaan ci ay euh, at at yi projet bi war moom mu ni def na projet bi fanweeri at ak juróom kon tool yi bu ko ñàkkee buñ ko jëlee suñu loxo danañ ko ñàkk fukki fanweeri at ak juróom sëñ bi fanweer at ak juróom tegoo dara ci loxol nit ki lu dul nga ni ko sa benn hectare boo am danaa ci dinaa la ci jox 500000 500000 yi nag boole kook forcé ñëwal signé xaalis baa ngi nii boo signéwulee nga ñàkk sa tool xanaa ñu ngi ci réewu yoon am ñoo xam ne ci lañuy ñu fëxee tiit xam nga rek nitu kaw boo ko waxee yoon tubaab bi day ñëw buur day ñëw daf la yóbbu police ak ñu bari tiit. joxe nañu seen suuf mais joxewuñu ko ci sago ci téeméer junni téeméer junni yooyu ñu joxe daanaka indi na féewaloo ci askan bi waaye indi na féewaloo ci mbokk bi lu tax ndax xaalis boobu ki ñu koy jox bu dee nijaay la wala bàyyi la ak ku a doon jigéen ña sëy yëpp ñëw nañu ñu ni soxlañ seen wàll ci ci xaalis bi am na ñoo xam ne gourmand ñu lekk ko ñi ci des noonoo jarbaat yi ak nijaay yi ak lépp daanaka projet bi indi na ko féewaloo première Eh, ñun nag ñu ni nag lii waru moon amee nii jéem ba ñuy jéem nag pour ñu toog nag négociation waxtaan ndax ñun ñëpp ay responsable lañu ñi nga xam ne ñoo joxe seen tool yi ay responsable lañu ñun ñi ay responsable lañu ñu ni kon nañu waxtaan ñu jooyaat ñu jooyante eh, projet bi doxalin bi maire ne amul jooyante amul dara joxe na ko joxe na ko àgg na ci na baax sax mu ni teg na ci bakkanam ñun nag lu ñu moomal sunu bopp sunuy maam yi bàyyi ko ci sunuy maam maam yi bàyyi ko ci bàyyi ba sunu loxo boo ci mënee teg sa euh, sa bakkan sàkkantu balaa ñun te li gën a garaaw mooy suufu Morolan ni mu bindoo dëkk yi dëkk bu ci nekk dafa am fu mu amee suuf moom maire mi def loolu boo demee ci suufi maamam yi fa mu dëkk foofu yëpp moom daf ko réserver joxewu ko kon projet bi daal pour ñun rek la bi mu fi toogee ak léegi mën naa wax ne suuf desatul ci Morolan te buñu waxé rek amul lu muy wax moy ni man may bour doola bi man mako yor nek ci kaw nit ñi ñun tam ñu fippu bi ñu fippoo amuñu doole xamuñu amuñu pexé ñu and nak ñu ni kon sunu suuf li ñu am bu mu bok ci projet bi ba projet bi comme ne ngeen du ngeen waxtaan légui li ñu am bu mu bok ci projet bi ñu ni euh eh, dara ñu fexé ba li ngeen am day dugg ci projet bi ci biir loolu jàmmaarloo yooyu première bi ma la waxee ne jëli xaalis bi indi na féewarloo beneen féewarloo bi mooy ki nga xam ne moo nekk fii di bay ci tool yi jaral na leen ñu dem ca ka nekk ndakaaru di liggéey nga xam ne moo ak doomi ndeyam àndoon nañu nekk benn ndax ki nekk fii di wattu kër gi moo tax kër gi biimeewul moo tax kër gi raaful moo tax kër gi gentawul kooku la ñuy woo dakaar ñu ne ko kaay neexal ko xaalis ñu ne kay kay jël xaalis bi kooku jël xaalis bi tool boobu kooku desewul dara te kële am na lu muy lu liggéey kii desewul dara boo nangoo tool bi léegi jaar nga ko ci doomu ndeyam xamal ko ne yow moomoo suuf si yow kese. te yéen tool ci bay. daan diñ ci bay xaal danañ ciy bay tamaate daan nañ ci bay euh, basi waaye basi bi picc yi bi ñu demee ba sonal ñu nga xam ni liggéey bi metti na ci côté boobu bu ñu xëyee li ëpp ci li ñuy liggéey nii xaal ak tamaate bi ñu paree ci xaal yi nii. parke nañu tamaate yi commencé ndax suuf si dafa nangu ba pare am na parti boo xam ne xëy na xaw nañ koo gëj a bay ci li ñu wax ñoom mais parti boobu ñoom bi ñu ñëwee parti bi nga xam ne moom la ñuy bay parti boobu la ñu dem ñu ni foofu la ñu soxla léegi nag fu ñu jëm toog nañu guddi toog nañu bëccëg te li ñuy wax nii ni ko président waxee toog nañu ak sous-préfet ndax depuis 2016 ba léegi amul dimanche boo xam ne defuñu waxtaan saa yu ñu laalee sunuy eh, tool rek dem nañ ci sous-préfet yëglu dossier yaa ngi nii amul fu mu demul waaye ñoom ñu forcer rek taxaw ci ah léegi nag bi ñu amulee pexe nag ñun ni léegi nag comme ñoom commencé nañu forcer nañu ba commencé nee na jox na eh, société bi eh, sunuy tool léegi nag ñu ñëpp nag ñu toog ci sunuy tool nag ku ci àndul nag na nga toog ci sa tool bi ñu bayee dañu nekk ci bay mi ren xaal seen oto yi dañuy ñëw di jaar ci sa kaw kaw kaw yi di ko yàq ak seen seen produit yoo xam ne day rey ñax mi di yàq gàncax gi yooyu provocation la dem nañ ci sous-préfet sous-préfet wax leen moom euh, directeur projet xaw ma basum la tudd xaw ma lan mu ne léegi kon danaa wax gars yi ñu arrêté dañu pare ñu yëg ni léegi ñun comme tool yi am na yoo xam ne am na ay limon ñu ñëw léegi jaar ci kaw tool yooyu labourer ko jaxase ko lépp muy tooñ boo xam ne kenn xamul lan la li nga xam ne moom am na ay limon maanaam defar nañ ko ba baax na seeni borom def nañ ci xaalis dëgg loolu lu mu bon ba noonu mët na 3 4 hectares kon lii tooñ la kooku nag nga xam ni imaam la sax ci dëkk bi ndax kilifa la bi muy dem yàlla xam ne ni comme ni ñu ko waxee moom demul sax pour xeex ndax nee na rakkam boo àggee pour xeex jël nañu huissier danañ jaareel dossier bi ci yoon mais bi rakka ji demee moom mu toog ba mu xaw a yàgg moom mu ne daal xalaat na rakka ji taxal moom mu eh, fekk ko balaa muy balaa muy xeex ndek rakk ji bi mu ñëwee dafa jàll ci beneen côté bi ci tool yi xam nga tool yi day rëy rakka ji nekk foofu di defaraat léegi nag ci la euh, ñëwee nee na bi mu yegsee gis li ñu ni ñu jaxasee suuf si ak ni ñu yàqee tool bi nee na xolam ci la jeexee moom nag jublul pour gaañ kenn comme comme dañ ko yàqal matériel dégâts matériel la moom tam mu dem ci seen oto yi waaw toj pare yi rek ci lañ ko jàppee encercler ko dóor ko ba dañuy xam ma ndax dafa damm wala de mais loxo bi mool nañ ko kon damay wax dama nañu loxoom ci mag moo xam ni imaam la di kilifa ci dëkk bi loolu yëpp ñu def ko ko humilier ko yeew ko nag boole ko ko yeew rakk ji nag bi ñu ko bi mu bi mu déggee ni ñu ngi rey sa mag moom dafa dafa daal daw jóge fële ak daw ñëw fekk leen foofu ci biir xeexoo yooyu am na benn euh, waaju ci gaañu encore waa dëkk bi nag bi ñuy laata ñëw ci euh, commandant yëg na ko ndax sous préfet yëg na yëf yi ñoom ñu woo sous préfet sous préfet tam aussi eh, woo commandant commandant daal di woote renfort ñu ñëw lii moo tax mais musiba bu rëy mën na fa am am te ñun bañu ñu leen ñu liggéey nee nañu dañoo am seen suuf li ñu sañ lu ñu gënaloon ñi joxe seen suuf suñuy mbokk lañu te def nañu erreur li ñu def du yoon xëy na menace moo tax ñu def ko waaye bu ñu demee ba jaaxle amatuñ ci pexe mais ñun ñii li ñu am te ci la ñuy dundee ci la bay bu ñu sañoon woon ñu bàyyi kook ñun mais dañu ne dinañ ko jël forcé kenn mënu ci dara yegg nañ ci ni sax ñi nga xam ne yéen eh, ñoo leen ëpp doole ñoo leen ëpp xaalis fu ngeen bunt bu ngeen fëgg danañ dañ ci def xaalis ñun nag làqu nañ ci giraaw yàlla lii daal ci gàttal mooy xew-xew bi metti na fu metti yegg ndax réewu droit réew moo xam ne réewu yoon la te gëm nañu ne réewu yoon la ndax dip boobu ba léegi ñoom ñu ngay liggéey ñun laalu ñu leen kon ñu jël sunuy suuf sunuy tool yoo xam ne am na gàncax ñu koy yàq ba pare nag boole ci ni nag bu ngeen waxee ñu tëj leen te li ñu wax commencement bi kii ñu eh, dóor nii ci àll bi ba yeew ko ko kilifa la tool ni imam li ñaaw na yàllaa ci def suturo mais bu woon loolu waa dëkk bi bu ñu leen fekkee foofu musiba mën na am mais nag ci jamono yi ñu nekk nii nag yàlla dogal na eh, àdduna bépp yëg nañ ko réew mi yëpp yëg nañu ko ndax partout ñu ñuy woo ñun nag dañu ne nag bëgguñu xeex ndax ñun bu ñu xeexee tey suñuy mbokk la ñuy xeexal bu ñuy xeexee suñuy jarbaat yi la ñuy xeexal bu ñuy xeexee suñuy baay ak suñuy niyaay la ñuy xeexal kon dëkk bi bu mor laa doon lakk woon ñun ñun ñun ñooy perte bu ñu bu deret tuuroo ñun ñooy ñàkk ndax mën na am sama rakk lay doon wala sama nijaay wala keneen kon bu ñu señoon jàmm mooy am kon ñu ngi woo état bi réew mi mu ñëw jàppale ñu te ñu bàyyi sunu suuf ndax moom la ñuy dundee bind nañu nag def nañu sunuy këyit bañ na mu ne du ñu jox këyit suuf si ñun moomuñu ko tey bu ñu waxee mu naan xaw ma demeen xaw ma lan ak lan suuf si depuis sunuy maam ci la ñuy dundee amuñu benn yaakaar nag bu suuf si jógee fii tey loolu mooy ni jaratul ñuy nekk waa Morolan nañu dem ndax ñu ak locataires yi benn la ñuy doon amoo suuf amoo dara suuf si nga yaakaar ki ko jël nag li gën a métti nag mooy daf la assuré ni fanweeri at ak juróom dana ko jël téeméeri junni la koy jënde bu paree daf lay jël liggéey liggéey bi salaire ru 50 000 salaire 60 jàppee nit ñi bu mu njaam te bu mu njaam jeex na dëppi kañ da ngay xëy huit ba quatre heures ñu lay gasloo gas yoo xam ne mel ni nit ñi nekkatuñu nit nañu bàyyi sunu suuf lii daal lañu ñu bëgg bu fekkente ne mën na am ñu ngi koy wax ji borom réew mi di Macky Sall la di ko wax membre gouvernement bi yëpp. képp koo xam ne yor na stage boo xam ne wóor na ne mën nañu jàppale ci lii na ñëw jàppale ñu te ñu bàyyi sunu suuf waaw lii daal sëñ bi mooy sunu mbir metti nañu lool nag jooytu nañ ko fu nee ne depuis 2016 ba léegi 2017 ba 2018 daanaka jeex na day naan Morolan dañoo xiif Morolan dafa xiif nit ñi dañoo xiif amuñu amuñu dund amuñu lu ñu dunde te loolu yëpp pour yoot suuf si dong la ndaxte li firndeel ne moom moomu wa loolu day yot suuf suuf si moo dindi ne am na benn forage boo xam ne Caritas fii moo ko gas ñun population Njaay Bopp Luxus Fulum Jaasa ak ay dëkk yi ay yi fi dër ñun ñun ñoo def suñu contrepartie pour maanaam forage boobu ñu gas ko ba ñu ko gasee eh, ba pare ba ñu jël téew bi yóbbu ko à deux kilomètres si suuf si nga xam ne fa la ñu war a béy eh, mu des liggéey ñu ñu ñu répartir maanaam euh, euh, tool yi ci village yooyu loolu rek moo si desoon yàlla yi def moom mu yéeg jël commune bi temps boobu commune rurale la ba mu ko jëlee la mu njëkk a def projet bu njëkk moom mu kase problème mu forage boobu te forage boobu mën na def mën na mën nañu fa bay lu ëpp cent hectares ba mu jógee si politique rek. dafa ñëw jox ko Adidas cinq hectares la jox Adidas Adidas bi ñuy wax ci Morolan yëpp cinq hectares la weesuwu ko politique boobu la def téye nag maanaam nag forage bi boobu ba léegi nag kenn liggéeyu si kon boobu bu fekkente ne dafa ne dafay utal nit ñi liggéey xëy xëy na commencé foofu parce que mënoo téye forage lu ëpp dix ans kenn liggéeyu si kenn def si dara nga ne léegi dangay ut xaalis ngay yóot nekk suufu jaambur kon waxu waxu waxu bi mu nee maanaam day utal ni ñuy liggéey forage boo xamante ne mi ngi nii kenn liggéeyu 5 hectares dong lañu siy liggéey te mën na def 100 hectares mi ngi fii gaare boobu ba léegi suuf su disponible loolu laa bëgg a leeral ak yi muy wax naan joxe na suufu Morlan amul fenn foo xamante ne joxe na suufu Morlan suuf asafura suuxu luxus parce que projet bi mu ñëwee ñun waa luxus ñun yëguñu njaay bopp. ak jaasa ba mu dëkk ñooñu ñoo doon waxtaan ci suuf si pendant xaw ma ay mois ñun luxus ñu dégguñu si dara ba xëy ñu ni projet bi waa projet bi nee nañu daal suufu jaasa bi daal xaw ma daal am nañu daal lu tax ñoom ñu ni daal foofu daal eh, eh, eh, gënalu leen ñu doog a jël nag léegi projet bi transféré ko si suuf luxus man mën naa wax ne. ñaari rencontre la la la Moussa def ak waa ben bi dafa y a 18 personnes la fi fekk village bi a 18 personnes la fi fekk si 18 personnes yoyu 14 nit ñoo wax 14 nit ñooñu ci 14 nit ñooñu euh, mën y wax 8 personnes nee nañu ah bu fekkente ni expliquer projet bi ci ay façon bi mu ko waxé né di ngeen liggéey di ngeen def ni di ngeen def ni di ngeen am nangam ak yooyu yëpp bi mu amee 14 personnes yooyu 8 personnes nee nañ bu dee de loolu day ah ñun day bëgg nañu ñi si des ñëpp ñi si des ñëpp dañu abstenir ñu ne daal lii daal dara leeru ko si. ñooñu am nañu suuf waaw ñooñu am nañu te waaw te 14 personnes personnes yooyu. am na ñoo xamante ne amuñu fa tool. am na ñoo xam amuñu fa tool kon boobu buy daan waxtaan ak nit ñi. beneen rencontre mooy bi nga xamante ne dem na ba dem ba dem ba dem ba mu ni daal joxe naa suuf si si la ñëwaatee fii mu ni léegi damaa juumoon vingt cinq hectares la ñu waxoon léegi ah gars yi daal nee nañ avec trente cinq hectares daal non trente et un cinq ans. vingt cinq ans yi si convention bu njëkk bi. parce que convention yi ñuy wax nii sax boo xoolee ba xool ah amul benn boo xamante ne dugal na ci tour euh, euh, suufu loxus amul benn boo xamante ne.

waxtaan na ko ba mu kii ba mu xamee ne nag mbir yaa ngi bëgg a dafa daal di jël ko francs yi francs sa ñun ñuy wax mu ah, euh, promoteur bi mu euh, parce que d'accord d'accord dañu village nee na d' accord mais chef de dañu ko dig dañu ko dig alal ju bari ñu ne ko moom nee dem naa si sëriñ si mu nekk ko sëriñ si loolu fu mu ne dañu dañ dem ñu ñaanal ñu mu nekk ko ah mais sëriñ kay dafa war a ci yem jàkkam sëriñ dafa war a dem ci jàkkam dafa war a yem ci jàkkam waaw léegi yu euh, lii daal pour pour gàttal mooy li nga xamante ne luxus fi mu nekk nii mu ngi koy dund ñu ngi koy dund suñu suuf nag dañoo ne comme que moom nee na jaral na ko bakkenam ñun tam nee na jaral nañ suñu bakken parce que si la dunde si lañuy dunde parce que ren jii mën naa wax ne li ñu fi euh, ñi nga xamante ne dañoo jëgte pour bay xaal te seen xaal moo gën a réussir ñooñu boo ko xoolee Eh, ñii am nañ ay cinq mille ñii am nañu ay 1 million ñii am ñi nga xamante ne nag si programme président de la république si la amee xaal seen xaal sax moom xëy na des na maanaam mel ni mu war a mel parce que heure bi ñu ko amee ñooñu ñii am nañu ay cent 200000 ñi am nañu ay quatre cent 400000 ñi am nañu ay 500000 mais ñi nga xamante ne dañoo dañoo dañoo njëkk a jëkte parce que aussi jii ak jiyaat bi moo waral loolu ji ak jiyaat ji ak jiyaat ba. programme président bi mu ñëwee ñooñu tamit ci lañu ci lañu ci lañu ci lañu rattrapé ba am ñenn mu bëgg a wax ne nag luxus bu ñuy wax mbay bi luxus bii ay jàmbaar lañ ci ñoom ñëpp ay ay ay béykat lañ amul kenn koo xamante ne bu ñu nekk commerce bi luxus bu ñu waxee élevage bi luxus te loolu du son propos c'est le propos du maire maire moo ko wax moo ñëw suñu njàng yi mu ni luxus mooy jàmbaar fii du sama wax waaw ma bëgg a wax ne rek état bi nag li ñu koy ñaan mooy lenn. mu jàppale béykat yi si ndox gis nañ ay programme yu muy def mais na ñëw si paysans yi ñëw si dëkk yi waxtaan ak ñoom ñun li soxlawuñu yeneen lu dul ndox kese la ñu soxla li si des yëpp mën nañ mën nañ ko mënal suñu bopp bu ñu amee ndox rek ndox moo metti am nañu suuf nañu utal ndox li si des yëpp dañ ko dugal suñu bopp